Wow, man la Moussa Diop keur Moussa quartier ndiayen quartier bu nan ndiayen donc man may président ASC bi tay nak danoo jugon japon tay ci dimanche bi don def ben set setal ci quartier bi ñi xam ASC ndiayen nak du ni lii guléer la ci ñom wa jafé jafé moy li la wax rek manque matériel la manque matériel moy jafé jafé fi may wax ak yow matériel yi yépp ñuy liggé manam quartier bi lañ dugg wala ci dëkk bi di àbb ay brouette ak ay pel ak ay belek te yoy war naa mën a ñàkk ñi ngi dem waye dañ doon talalat loxo nit ñi pour ñu doolé laaj ñu di ci jital nak monsieur le maire mi nga xamanteni tay yalla def na ni mom mo nekk fi ci dëkk bi war na noo mën a ci yenn moy ay pel wala brouette wala ay belek nangam nangam Lol manam dañ ko force, forcer ki ko waye dañ ko koy majalat di ko majalat man fuñ ma talal la micro dinaa ko wax wa ak pel ay rato ak yoy jox ko ASC bu boba jafe-jafe mbalit yi ci dik bi yi ñuy gis dina gëna wañé dan ndax boy dañ ci démé doole lañ ci ay pel ak ay moyen yo xamanteni tay buñ bëggé na taway seen quartier wala dëkk bi dina yomba seen liggéey tay jii ñi ngi ni di nettoyer fi yeneen équipe yi ñi ngi nettoyer ay école de bac ak CM bac yooyu kon nag loolu faaw monsieur le maire jàppale taxaw ci taxawaay boo xamante ni tey bu boobaa bu ko defee ñi ko ñu bari dinañ ko tàcc dinañ ko tàcc loolu daal ñu ngi ko ci xaar bu baax a baax a baax bonne volonté yi moom man naan ñi ñuy jàppale waaye seen jàppale dafa xaw a des ndax boo xool jàppale boo xam ne ay 1000 francs yi mille yoo xamante ni tey buñ la ko joxee. gërëm ndax booy xool dompat sax ci sat la bokk kon nag buñ jëlee seenub dërëm sax def duñ def di leen sant di leen gërëm waaye ñu gën a yokk euh, ndimbal mi gën ñoo dooleel gën a dooleel ASC bi lim dafa bari sama classe gi buñ buñ leen gisatee dinañ ni mën nanoo jàpp ni danoo bari wax wala danoo bëgg ay micro affaire yooyu liñ ci jublu mooy bëgg dëkk bi am banen xar kanam ku ci nekk ci dëkk bi gis sa bop ci dekk ci fofu rek lañu sukkandiku du bëgg baat du bëgg ndomba tank ñun politique bi buñ ci duggé buñ ci duggul bëgg dekk bi avancé do nga tax waye du pour di ci wuti baat ak nangam nangam buñ bëggoon baat ñun xam ñun xam xam ni ay ay yenen grade yu do yoy waye yoy appaluñ amaluñ njariñ ñun liñ amal njariñ moy nu dekk bi avancé ndaw ñi avancé wa di len santat di len geureumat di talalat ñepp loxo sûrement parti yi nga xam ne opposition lan nekk boo nee wàllu politique dañuy jël lépp bëgg koo wékk le maire te booy xool ñeneen ñi nga xamante ni ñoo yor yeneen parti boo xoolee seen i jëfin war na noo waroon na noo dépassé fi ñu taxaw nii ndax bala nga leen di gis élection ñëw ba élection yoo passé ñoom pere nañ ci kon nag ñooñu war na noo amaatu taxawaay boo xamante ni tey boo élection ñëwee duñ soññu sax jël li ñuy liggéey fekk na liñ bëggoon ñoom liggéey nañ ko avant élection di ñëw waaye nit ñi doo bàyyi ba élection ñëw rek nga ni tànjang seen i bët bëgg li nga li nga bëgg ñu defal la ko loola day mel ni day am lu la fi lu la lu la andi ci ñoom loolu nag ñu koy mayetu bu baax a baax a baax di waxaat parti opposition yi ñoom ñëpp ñi nga xamante ni ay gëm sa bopp ak ay parti réew meeg yeneen parti yu baree bari yoo xamante ni tey Thierno Alassane Sall ñoom fay Ndiaye ñooñ ñu gën a taxawaat commune bi surtout dëkk bii ñu dëkkee muy Kër Moussa ñu amaat taxawaay bu baax a baax a baax ñu gestuwaat jeunesse bi ndaw ñi bu baax a baax. tàllalaat loxo bon volonté yi ñu gën ñoo jàppale ci wàllu sécurité dëkk bi amatul benn sécurité waxamatuma la guddi waaye euh, waxatuma la bëccëg waaye guddi sax nit ñi ñimeetunoo génn génn wala nga yónni sa doom. mu war la jëndal crédit sa portable dañ koy bo génnee heure bo mën di génn muy bëccëg muy guddé muy bëccëg man nañ ko kar nangu portable la ma bu dé ay posette ak yoy non lañ koy kiyé kon nak walu sécurité ñing koy ma jallat ñing koy jallat ñi nga xamanteni seen loxo ag na fo xam suñu loxo ñun dëkk bi amna problème sécurité bu baaxa baaxa baaxa baax ñu renforcer ñu ah, walu courant bi ci quartier yi bam gëna yaatu wàllu ndox mi ñuy tàllalaat ñëpp quartier yi nga xamante ni ay sancaan yu bees lan fu ko dama ne ay daaru salaam ak yeneen quartier yi boo génnee ay njóobentaay ci ginnaaw CMBA ak yooyu am nañ jafe-jafe ndox ak wàllu courant yooyu ñu gën ñu cee jàppale di tàllalaat ñëpp loxo bul jàpp ni njaayeen rek laa dëkk du wax yeneen quartier yi yeneen quartier yëpp am jafe-jafe ndox ak jafe-jafe courant kon nag waruñu ñoo mën a taxaw ñu dëkk ñu micro te wax ñu jafe-jafe yi nga xamante ni mooy wàllu ndox ak wàllu courant bu doon dëkk bi dafa am wàllu robinet mbedd ak yooyu dinañ ci mën kii waaye robinet mbedd yi parce que yëpp dañ ko éliminer kon nag ñooñu ñi ngi am jafe-jafe boo xamante ni ñi ngi tàllalaat nit ñi loxo pour ñu bu mënee saafara ci mbir moomu beneen bi mooy wàllu courant bi wàllu courant bi Kër Moussa day dëkk boo xamante ni tey boo fi dugg dëkk guddi dangay jàpp ni sax Kër Moussa amuñu courant kon nag loolu ñi ci majjalat di ci talalat monsieur le maire mi nga xamanteni tay loxom ag na fo xamanteni sama classe sen sen loxo ñu fa ñukay majjalat ci walu courant bi bi nga xamanteni tay bo duggé duggee Kër Moussa di nga xamné fi té courant am na fi lampe yi dëkk bi lèr mbedd yi tali bi lèr ku dugg xamné fi amuñu jafé jafé lool dal ñi koy majjalat di ci talalat ñepp loxo wa bisu tay bi ñu ci jappalé moy di santane ñep di gëreman ñep surtout ma ndaw ñi té suba ba léegi 8h ba boy xol 16h moy wa di santane ñep di gërem ñep di gërem mbollem ku japp ci liggéey bi diko doore ci madame député Aram gis nañ jàppaleem bu baaxa baaxa baax gis nañ engagement tamit lepp bepp liggéey bu nekk bu ko yégué dina ca duggal loxam bu baaxa baax ak parti pire bi nga xamanteni mom la andal di liggey ak ñom gis nañ yëngatu bu ñuy def dinañ ca tew def ca sen tranga sen kantalay kattan suñ satal satal bi passé sax def nañ ci ab liggey yu yu am am am solo ñoo nañ lañ ci walu set satal bek yëkëti seni tranga seni ndox ak seni envelope ak yëpp ñew jappalé ñuko kon nak du duñ def lu di len ci sante di len ci gërëm di santat president ASC e yep ndax jité ay ndaw dafa yombul kon nak lool ñom duñ def lu di profito di len ci ñaanal di len sant di len gëreem di la santat lay di santat sa sen YouTube waaw di santat ñep de gërëmaan ñep di talalat ñep loxo surtout quartier min dekk di talal ñep loxo góor jigen mak ak ndaw ñu gëna a ci liggéey bi ta xamni ne liggéey bi liggéey bu yomb ndax liggéey ay ndaw la ay ndaw nak bu ñuy liggéey dañuy soxla mag ñi encadré leen jàpp leen bu baax a baax a baax di tàllalaat ñëpp loxo